di gërëm ñëpp ñoo xam ne rek nañ si bés bi di leen jaajëfal bu baax baax rek di nuyu ba euh, Mr Ndaw bu baax euh, euh, baax di managing director Fini Officers Mess di nuyu rek kii di Haji Konte bu baax baax di managing director Universal Universal Gadgets and Travels bu baax baax di nuyu Devia, I'm saying a very big mention to you Devia.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 ay nine years back ku ma waxoon na lii dina am tey mën na la déedéet waaye ñi ngi sant yàlla muy maye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 rew Gambia kilifa aada yi di len ñaanal yalla yagal len fi kilifa diine yi di ñaanal ñepp di leen wax ab sab ko bahul shukriya contane na trop di len jox inshallah allah dig daje ah, five years anniversary partout incha allah dina neka fële sa alliance franco inshallah ticket bi is 100 dollars yi 6 June inshallah di len jaajëfal di len wax jërë ngeen jep jërë ngeen jep ala barka jaaraama bye bye thank you biyaga na way xam naa ne na xarit ku baba ku baba duum kuy Thank you. Thank you. naka nga gisee bes bi tey ah, bes bi lu dul kontaan torop ah, di ñaanal Indiana yàlla yóbbu ko fi mu bugg a jëm kanam because ah, lu nekk rek nekkul ne benn nit a ko mun fu mu jaar ñaar ñaar bokk ci so di kontaan si ñoom ñëpp ak suma caat bi di Adja Hadi ak ñi fi teew waa Bollywood yëpp maa ngi leen di ñaanal ñoom it yàlla luñ ci jublu ñoom it yàlla defal leen ko ñaanal programme bi daal. di ñaanal ñëpp fans club bi ak mbooleem ñu fi teew ñépp maa ngi leen di gërëm di leen sant. ana kontaan rek di ñaanal ñëpp di ñaanal GRTS fans club yàlla yóbbu leen si kanam fu ñu bëgg a jëm yal na leen fa yàlla eggale si barke Seydina Muhammad. jërëjëf yow yaa tudd naka. Fane Ndiaye. naka nga gisee five year anniversary Bollywood bi kontaan nañ trop bu baax a baax ndig neex na fii cay neex nañ spécialiste ma star bi Kumba fii ca loo xam ne lu grave ok di nuyu Indiana di nuyu wa fans club bi yëpp di len wax ne contane nañ always ñu ñoo bégal te always dañ day you know dañ proud of them so they keep it up eh anti mba contane nga si goudi bi. ah alhamdulilah rabbil alamin man foogu moon ni xalé dinañ ko defé ni alhamdullilah sante yalla ndax so amé sa doom mosut dem india lu may rek ko dem ba ci defé mu melni ah di ñaanal Indiana. programme bi muy jiite yàlla nag ci yàlla def jàmm yokk ko si ndam ak mboolem ku ci nekk di ñaanal xale yi fecc ñoom itam yal na yàlla lafal leen cat yokk leen ndam ñu dem ba you compete Indian feccikat yi. kontaan naa bu baax a baax really we had a wonderful performances here going on and di ñaanal India rek am Bollywood showbiz-am bi fu mu bugg a mu ega yàlla eegal ko foofu noonu am ba pare yéen tamit yéen a ngi def liggéey bu baax liggéey bu rafet am um, seen seen hosting bi mu ngi overland ne everything is spectacular